sëriñ bi sëriñ bi. lu mat fàggu ci nun lu fàggu ci nun tey ak ëllëg tey ak ëllëg. fàggul nañu ko te jiwoon na ceeg sëriñ bi sëriñ bi. lu mat a ñaanal. lu nu mat a ñaanal. ko. sëñ bi ñaanal nañu ko. borom nangul na te borom nangul na ko. kon nag kon nag. li war li war. nan sax ci wéetal yàlla nan sax ci wéetal yàlla. sax ci yàlla sax ci jaamu yàlla.